monsieur le président la république Macky Sall di ko sant di ko gërëm parce que fii si Sindian fii ci Fogny ci zone bi depuis ñu xam politique musuñu am li nga xamante ne nii mooy décret présidentiel guleet ci président Macky Sall mu jël ki nga xamante ne nii mooy le recteur du CROUS nommé ko mu jël ki nga xamante ne nii mooy doomu Sindian nommé ko directeur général ANRAC sama turandoo la Ansou Sané jël man mi nga xamante ne nii man Ansoumana Sané ne ma yow laay jox secrétariat général bu AIBD SA président la république Fogni ñu ngi lay sant Casamance mu ngi lay sant département bi ñoo ne ma ñu lay sant man mi Ansoumana Sané sama wàllu bopp maa ngi lay sant di la gërëm naan la a damay ñaan président la république président yoon bi nga xamante ne nii mooy laa bukkul di Fogni maa ngi lay ñaan nga jàppale ñu bukkul di Fogni bii ñu mun koo defar parce que yoon bi dafay lëkkale département de Bignona région de Ziguinchor ak le Fogny ndax Fogny dafa am li nga xamante ne ni daf ko war a jox département bi fii nii ay meññeef yu am solo mu ngi fi dafay ñor ñu bugg ko génnee ci département de Bignona dañuy bëgg a lëkkaloo ak population de Gambie moo tax it buukul boobu président la République moom laale ñaan nga mayal ma ko sama population comme ni nga ko defee feneen ak feneen man loolu def naa ko suma combat ndax bis ni tey gën naa feddali sama taxawaay gën naa feddali sama pas-pas gën naa feddali sama fas jom pour que au soir du 23 janvier ma nekk le maire de la commune de Sindian and pour que Sindian mën a participer di développement wu région bi pour que Signa di mun a compter fi nga xamante ne nii foofu la ñuy càmbaree nu ñuy def pour que Sénégal bu ñu bëgg jëm kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm.